إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk julit yu tedd yi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne yàlla rekk mooy ki yeyoo ñu koy jaamu yeneenti yàlla rekk moo am sañ-sañu jàngale ne nii lañuy jaamoo yàlla lépp loo xam ne nii safaanoona ak sunnaam loolu lañuy tudde bidaa bépp bidaa ak lu mu rafet rafet ak réer la ca bépp réer bala yàlla jéggalul dalay dugal ci mbugalam tey jii doomu aadama yi bokk na loo xam ne nii ñu bari ña nga cay kër-kër di def ay effort ngir am ca ngërëmal yàlla loolu moo tax suñu xutbab tey bi ñu bëgg a fàttali ñan mooy ñi nga xam ni suñu borom yàlla nii na gërëm na leen ca dana leen tabbal ca ajjana ya gën a kawe yal na yàlla boole ñu ca ñooña mbokk ñooñu mooy ibaadu rahmaan mooy jaami yàlla borom yërmaande ji soo ñëwee dëkk bu mel ne Sénégal seytaane liggéey fi liggéey bu rëy ca mooy ibaadu rahmaan mooy kan mooy soxna si muuru wala ndaw lee bàyyi sikkimam ñu ne ñoom ñooy ibaadu rahmaan mbokk loolu njuumte la jullit ñi ñooy ibaadu rahmaan képp ku wéetal yàlla jaamu ko yaa ngi bokk ci ibaadu rahmaan ndax ñaar rekk fi nekk ibaadu rahmaan wa abadatu taaxut comme ni ko yàlla waxe mooy ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla borom yërmande ji ak ñi nga xam ne ñooy jaami cheytaan yi immaa nga nekk ibaadu rahmaan wala nga nekk ibaadu cheytaan immaa nga bokk min hisbillah wala nga bokk xisbu cheytaan parti yàlla wala parti cheytaan waaw léegi nag ñan ñooy ibaadu rahmaan ndax mooy ñiy muuru kese ndax mooy borom sikkim yi ndax mooy kan mbokk ibaadu rahmaan ay pas-pas la ak i jëf suñu borom yàlla leeral ko ci ab téeréem ma nga ca jeexitalu suuratu furqaan saar ba topp ca suuratu nuur suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ibaadu rahmaan yi day mooy ñi nga xam ne bu ñuy dox ci kaw suuf dañuy ànd ak dal mbokk njëlbéenu melokaanu ibaadu rahmaan mooy koo xam ne nii dafay suufeel boppam ci yàlla tax doon ko ëmbal doon ko dal du xeeb mukk jaami yàlla yi du dox mukk di puukarewu na doon tànkam lay doxe wala waruwaayam lay doxe wala lu mu mën a doon heure buy doxit day dox ci loo xam ne ngërëmal yàlla ma nga ca du dox mukk di jëm fu ngërëmal yàlla nekkul dañuy dox ci kaw suuf ànd ak la nga xam ne mooy dal heure boo xamee ne nii nit ki xamul dara ñëw na bëgg leen indil histoire ñoom lañ koy tontu mooy li gën a rafet ca tontu mooy salaamaam ca mooy ab ibaadu rahmaan du nekk mukk di xuloo ko dagga sante day seet la am njëriñ mu wax ko gannaaw ba mu dem mi ngi noonu la nga xam ne mooy ñaw làmmiñ ak yuuxu loolu de melokaanu ibaadu rahmaan borom bi subhanahu wa taala ni ibaadu rahmaan day mooy ñi nga xam ni bu guddi jotee dañuy bàyyi seeni lal taxaw di naafila di ñaan seen borom ca ngallawaayi góor ak jigéen mag ak ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ demee ba guddi ga des ceeru guddi ga ay deux heures du matin jëm fajar suñu borom yàlla dana wàcc nam ko neexee ci asamaan yu jege ya naan ay yéen samay jaam ana ku may ñaan ma may ko ana kuy jéggalu ma jéggalu ko ana ku may woo ma wuyu ko loolee moo tax ibaadu rahmaan ñoom day dañuy bàyyi seen lal même bu doon quinze minutes trente minutes avant jël daal di julli la yàlla yombal ci ay rakka toog ak seen boroom ñaan ko jéggalu ko woo ko ci mu teggi leen la nga xam ne muy ay tiis loolu mbokk mooy mandarga ibaadu rahmaan waaye mbokk ibaadu rahmaan yi mooy ñan mooy ñi ragal mbugalum sawara ñooy wax ay yàlla yàlla nag ñu saf soril mbugalum safara safara day dana lënkoo képp koo xam ne jëf na lu tax nga dugg fa kenn mënu la caa musal ku dul yàlla kaana xaraama safara day ñaaw na jaar fa ñaaw na sax fa moo ko safara am na jullit yu fay jaar yal na yàlla musal ñu ci yéeféer yi ñoom bu ñu fa duggee du ñu fa génn ba faw waaye nga la wayu jullit dund ak àdduna bu gàtt gi boo fi defee téeméeri at ñu ne bari na ndax jar na nga dem safara def fa téeméeri at wala miinoo ndax jar na semaine safara déedéet kon yàlla yàlla nañu musal ci lu ñuy tax sax safara ci lu ñuy tax jaar safara loolu mbokk seytaane liggéey liggéey bu rëy ci dëkk bu mel ne Sénégal quatre-vingt-dix-neuf des Sénégalais xalaatuñu safara am na ñu leen liggéeyal loo xam ne dee rek lañuy xaar pour tabbi aljanna ut nañ dëkk yoo xam ne kuñ fa suul àjjana nga jëm am nañ ñoo xam ne jàpp nañ ne ëllëg ñooy dox seen diggante ak seen borom xalaatuñu safara waaye mbokk loolu liggéeyu seytaane la suñu borom ba mu teggee yonent yu tedd ya daf na ñoom day dañoo nekkoon di ragal sama mbugal di ma woo di toroxlu ngir yàlla musal leen ci loolu ba baa xaritam ya ibrahim alayhi salaam wala tuxzini yawma yubaasuun ay yàlla yàlla bu ma bokk ci ñi ngay toroxal yawmal qiyaama mbokk ñoo ñooy ibaadu rahmaan di ragal sawara ak lu leen di yóbbu sawara waaye mbokk ibaadu rahmaan suñu borom nee na mooy ñi nga xam ni bu ñuy dépensé duñu ngort ay du ñu nay waaye nag du ñu yàq bokk jullit li la yàlla wërsëgal la nga war a jox sa famille jox leen ko la nga war a jox miskine jox leen ko boo waree génne zakat génne ko lo ñàkk nay googu da lay jural mbirum yàlla waaye le contraire yàq da lay jural mbirum yàlla ci yàq mooy lan mooy def loo xamee ni nii ëpp na loolee mbokk dañ koy tudde yàq mboolem loo def ci lu xaraam loolu xaraam na baaxul même bu doon ñaar dërëm waaye la nga xam ne 1000 francs moo fa day nga la waay defee 1000 francs bu fa def 10 000 kër lam otalaak lu mu mën a doon mu bokk nag lu seytaane indi Sénégal nit ñi concours ci yàq ñoo xam ne dañuy woote daje yoo xam ne yàq wallahi gis nañu ci internet bi koo xam ne mi ngi toog ci benn mbalit di yëkkati jigo nag yi di yëkkati faaru xar yi naan lii ñun rek ñoo ko am mbalit bu mel nii ñun rek ñoo ko am loo xamee ni ni benn mbooloo mën a daje lu ñu mënoon a dund ci weer wala ñaari weer ñu daal di koy yàq ci ñetti fan jàpp ne loolu sant borom bi la jalla wa ala déedéet mbokk loolu yàq la wallahu la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàqkat suñu borom mu ne innal mubazzirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana sheytaanu li rabbihi kafuura yàqkat yépp ay mbokk sheytaane lañu te sheytaane daa weddi boromam loolu moo tax ba ngalla waay loolu bu leen jàpp ne xéewal la loolu nattu la fitna la mbugal la suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ibaadu rahmaan mooy ñi nga xam ni duñu woo mukk yàlla di ko boole ak keneen yàlla ak jiw daanu woo keneen ku dul yàlla di waat ci keneen ku dul yàlla di xëcc li koo ci keneen ku dul yàlla di ñaanalante ci keneen ku dul yàlla ibaadu rahman duñu def loolu mukk duñ ko defal yenentu yàlla duñ ko defal aboubacar du omar du usman seen woote yépp ci yàlla la seen yaakaar yépp yàlla la seen xëcc li ko yépp yàlla la laa yaduuna ma allah ilahan axar waaye mbokk ibaadu rahman duñu rey mukk bakkan lu dul ba yàlla subhanahu wa taala reylu ca kooku ñett rek la koo xam ne doomu julit la woon xëy génn ci lislaam ak koo xam ne daa rey bakkan ca moo ko tey ak koo xam ne daa masa sëy ba pare di njaaloo ca kooku it kenn amul droit di ko rey lu dul atte kotub lislaam waaye yow mi nga xam ne doo atte kotub lislaam nit ki lu mën a def amoo droit di ko reyal sa bopp suñu borom yàlla yit mu ne ibaadu rahmaan du ñu njaaloo ngal la waaye mbokk xam ne njaaloo lu bon la bokk na loo xam ne nii fu fu ñu ko waxee ab sénégalais mooy xolum jóg mooy góor jigéen ban góor jigéen yal na yàlla yokk bañ giñ leen bañ yokk ko ci sunu xol jeunesse bi waaye mbokk góor jigéen lu bon la waaye ndax njaaloo nag njaaloo it lu bon la njaaloo da lay jural mbëggalu àdduna bu fi atte lislaam nekkoon yow ndaw yi musul sëy téeméeri yar lañ la war a dóor ca penc ma yow mi mës a sëy ay xeer lañ la war a tiim dóor la ko ba nga dee kon loolu lu bon la yonent bi alayhi salaam mi ngi wax mbugal yu tar yi ñuy mbugal njaalookat yi ci barzaq avant leen di xaar ci àllaaxira kon mbokk ibaadu rahmaan yi du ñu njaaloo mi ngi noonu waaye nag suñu boroom boroom yërmaande ci bi muy woote waxul ibaadullah waxul ibaadul aziz waaye def na ar rahmaan mooy boroom yërmaande waaw jaam bi nga xam ne nii nag moom yàlla nattu woon na ko moom day bu ma san jàq ne yaa cheikh diw bu ma san di ñaanal ci diw lay ñaan koo xam ne nii ma jotoon na njaaru koo xam ne jotoon naa rey nit waa kooku luy pexeem suñu borom yàlla jalla wa ala ne xanaa lu dul koo xam ni dangaa tuub daa di gëm yàlla daa di sax ci lu baax tuub nga jëf ja nga doon def daa di gëm yàlla xam ni lii day waroo ko wane def ca bu la yàlla jéggalul mbugal moo lay xaar sa desitu dund nga daa di sax ci li neex yàlla borom bi yàlla nee na ñu mel noonu day mboolem seen jëf yu bon ya danaa ko soppi def ko jëf yu baax ca mooy fa yàlla santoon ñu bindal leen ay bakkaar dana wax malaaka yi kii day ñu tuubam gi selli bakkaar yi soppi leen ko ko ak ay tuyaaba ca loolu nga xam ne mooy yërmandeem borom bi subhanahu wa taala nag ni ki tuub jëf lu baax kii day mooy ko tuub jëm ci yàlla ak tuub amma waa ji jàpp ne ah yàlla day borom yërmande la kon naa njaaloo su ma paree tuub naa lekk riba su ma paree tuub naa kàrt su ma paree tuub kooku xamul boroomam borom bi ne ne man taaba wa amila saliha daa tuub sax ci tuub googee rëcc ci xolam ñemeen ni la yàlla subhanahu wa taala di baax mbokk ibaadu rahman suñu borom nee na mooy ña nga xam ne du ñu seede ay fen mbokk ibaadu rahman du fen du seede fen du seede jëfi fen ca bokk na ca la nga xam ne mooy zuur mooy lépp loo xam ne dañ koo tëral ne lii ak jaamu yàlla la sosal ko yàlla sosal ko yonent yàlla jaamu yàlla yàlla dong moo koy tëral yonent yàlla dong moo koy jàngale lépp loo xam ne dañ koo daje ne lii jaamu yàlla la ci yonent yàlla bi diglewu ko zuur la ibaadu rahman du fekke loolu du dem foofu borom bi subhanahu wa taala xam leen ne bokk lu mu gën a bañ ci ay jaamam mooy fen yonent bi alei salatu wasalaam toog na ak sahaaba yi ndax du ngeen kaay ma wax leen li gën a màgg ci mboolem li gën a màgg ci bàkkaar ñu ne ko xaka yu mu yàlla yónni mu ne mooy ngeen di bokkaale ak seen boroom gannaaw ba ngeen di toroxal si ni way jóg dafa toogoon mu jóg daal di dafa sóon woon mu jóg toog ne ala waaye bokk na ca fen ak seede ay fen jullit bul fen bul seede fen sunu borom mu ne ibadu rahman mooy ñi nga xam ne heure bu ñu rombee allahu mooy loo xam ne njëriñu adduna nekk ca njëriñu àllaaxira nekk ca dañuy romb ànd ak teddaange looloo tax ibadu rahman doo ko gis ci grand place bëlul yaag dem yee ya doo ko gis ci caaxaan yi nga xam ne amul benn njëriñ doo ko gis ci lépp loo xamee ne nii dafay yàq ton ibadu rahman doo ko gis ci loolu bal buñ ko rombee dañuy romb ànd ak dal ànd ak teddaange ak seen personnalité mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni ibaadu rahmaan mooy ñi nga xam ne dañ nañ ay yàlla yàlla nag ñu may suñu way dencante yi na doon suñuy borom kër wala suñuy soxna suñu xol sedd ci ñoom ca mbokk mi ngi noonu ki nga xam ne nii mooy góor gi xam diineem amul lenn loo xam ne dana gën a sedd xolam mooy mu gis soxnaam doon koo xam ne nii soxna bu nangul yàlla la nangul ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne àdduna li fi nekk lépp dañ koy xéewloo kër yi oto yi tool yi waaye mu ne xam leen ne yéen góor ñi la gën lu ngeen di am ci kaw suuf mooy soxna su baax soo xam ne boo ko xoolee kontaan ma nga ca la neex yàlla loo ko digal mu def loo ko tere mu bañ mu loo ko tere mu bàyyi nee na kenn amul ci àdduna lu gën lii yàlla na yàlla def suñu soxna yépp ñu mel noonu waaye it amoo ci àdduna yow soxna lu mel ni jëkkër ju baax ju lay teete jiite la ci jaamu yàlla ba ëllëg gi si biir ngeen ànd dugg aljanna wallahi kenn amul yéen jigéen amu leen lu ci kaw suuf lu mel noonu waaye suñu borom yi teg ca yàlla yàlla ni ñu may suñu xol sedd suñu njaboot ay yéen julit xamal ne trésor bi gën a rëy booy fàggu ci kaw suuf mooy njaboot bu baax amul la gën a màgg looy bàyyi ci kaw suuf mooy njaboot gu baax ca mooy doom yu baax yoo xam ni suñu jaamoo yàlla yàlla bindal la ko yaay seen sabab yaay leen ca teete luñ ña ñaanal yàlla nangu ko loolee doomu aadama bàyyiwul ci kaw suuf lu gën loole lii it da ngay gis ne kon julit bala gannaaw sabablu ba mu koy sabablu da koy ñaan yàlla subhanahu wa taala borom bi yàlla nag nee na ibaadu yii day suñu ñëwee ñu ngi leen di fay al ghurfa mooy taax yu gën a kawe ci àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àjjana téeméeri étage la téeméeri daraja diggante daraja bu nekk ak moroomam mi ngi mel ni diggante asamaan ak suuf noonu lay demee ba téeméeri daraja ba gën a kawe mooy firdaws nee na ibaadu rahman foofu lañ leen di dalal su ko defee daan fa la jëkk nuyoo ya mooy malaaka yaa ngay dugg ci seen biir di leen nuyu di leen sargal di leen dalal al wildaanul muxalladoon ca mooy boog yooyu yi nga xam ne yàlla da leen ko jagleel ñu juddoo ca àjjana yàlla màgg leen ca àjjana waaye nuyoo ba gën a màgg nag mooy salaamun qawlan min rabbi rahim nuyu ba leen di yàlla di nuyu salaamun aleykum bis na ko tey mucc ngeen ci dee mucc ngeen ci feebar mucc ngeen ci tiis mucc ngeen ci njàqare du ngeen fi génn ba faww ak noonu dootul am seen diggante ba faww borom bi subhanahu wa taala nee na dañu fay sax ba faww borom bi nee na cay fii day moo rafet jaaruwaay ca moo rafet saxuwaay ca mbokk àjjana kenn du fa jaar comme na ma la ko waxee ci sawara àjjana ku xis bu dugg dootoo génn ba faww borom bi subhanahu wa taala nag ni lii faye naa leen ko ngir ni li ñu muñe woon ay yow mi may déglu xamal ne diina ji mooy diina yi ku fagaru ku muñul du mën a jaamu yàlla adduna banneex yi bari na woote caaxaan yi bari na xumb na riir na lu bari ñi àndul ak seen xel loolu da leen di yóbbaale yow mi nga xam ne nag yaa gëm sa borom wéetal yàlla sax ci ay ndigalam fokk nga muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na axiru zaman buy ñëw ñii nar a téye sama soxna sama sama sunna dañuy mel ne ñu mooy ci ay xali safara il faut nga muñ wéetaay bi nga bi nga wéet muñ xas yi la mbokk yi di xas muñ xa dëkkandoo yi liñ lay wax di ko teg ci sab der jàpp ne da nga riir jàpp ne da nga ëppal ngal la waaye boo yégee ne yaa ngi bokk te ñu ne yàlla àndal muñal loolu looloo tax borom bi bu dajeek waa ibaadu rahmaan du wax fay nañ leen àjjana ngir julli ya ngir koor ya ngir at ya lu muy wax mooy bi ma sabaru ngir muñ nga nga xam ne muñoon nañ ko borom bi subhaanahu wa taala nag nee na fii day moo rafet wàccu waay borom bi daal di tëje wax ji ni doyuma leen dara lu dul ngeen jaamu ma maa yabawu bikum rabbi laa du'aa'ukum bind ma leen lu dul ngeen jaamu ma léegi nag képp koo xam ne weddi na ah ku mel noonu day moom dana lënkoog moom mbugal mbokk melokaan yi mooy melokaanu ibaadu rahmaan yal na yàlla boole ñu ca boole ca suñu njaboot yal na ñu yàlla boole ci jaamam yi mu gërëm yal na ñu yombal ñu jëfe la mu gërëm yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu ñu jural meram yal na ñu wërsëgal teg ñu ci àjjana ak lu ñuy tax a tabbi aljanna yal na ñu yàlla musal ci sawara ak lépp loo xam ne dana tax a dugg sawara allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين